ولتدخل المصلح في يدي وفي داري fa mu baaxoo jóge ca Cheikh Mouhamadul Mountakha xalifa di murit yàlla na fi yàgg lool te wér wàcc ci jëwriñam ji nga xam ne moo yor kàddoom di Cheikh Mouhamadul Basir moom Cheikh Abdoul Khadir Mbacké yàlla na fi yàgg lool te wér ci teewaayu sëriñ xaafiya Buso mi nga xam ne moo jiite daairatu muqaddimatul xidma bokk ci imaam yi ci biir jumaa ji te jiite ñi nga xam ne ñooy liggéeyal jumaa ji jëm ci fédération Espagne ci njiit la di Serigne Mbakke Njaay xam naa ni ñuy def ngir njëkkante ak waxtu wi dañuy jëbal sëriñ Basiiru kàddu gi bu ko defee mu jottali ndigal li nga xam ne moo jugee ci Serigne bi jëm ci taalibe yi féete Espagne bu noppee ñu jox Serigne Mbacke Ndiaye mi nga xam ne mooy président fédération bi mu leeral liggéey bi ni mu bëgg mu tëddee bu noppee ñu jox Serigne Hadi Touré bu noppee ñu jox Serigne Ndiaye Fatma bu noppee ñu jox Serigne Fallou Dia bu noppee ñu jox Serigne Abdoulahi Diop Serigne bi daal nuy ñaanal nag ñu daal di yëkkati jataay bi kon nu jébbal kàddu gi Serigne bi. alhamdulillahi qaa'il fi muhkami tanzilihi laa yasbiquunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'maluun salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokku julli di bokki taalibe ci ndigalul cheikh Mouhamadou Mountakha al xalifatul am li tariqatil muridiyya ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak ba naa li mu ci lislaam am ko ci toolu Serigne Touba bi suñ borom may ko kàttan ak ba mottali ko ni ko bëggee eh, muy ndigalum joxe jox ko bokki taalibe yi nekk Espagne di fédération daayir bi xam naa li ma ci war a wax nag dama koy teg ci loxol sëriñ Afi Bousso al imam mi nga xam ne moo nekk jiite jumaa ju mag ji te yor jiite daayira muqaddamatu xidma bi nga xam ne mooy saytu li ci wàllu jumaa ji kàddu yi ma ci war a wax yëpp teg naa ko ci loxo mu mu jotle ko ni mu ko war a jotlee kon sëñ Afi bismillah salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki taal ñu ngi nuyu ñuy seetaan ñëpp di jiital Cheikh Ahmadul Bachir di ñaan suñu borom loolu ko sàmm ko wér bay li mu yéene liggéey ci yoonu maam bi yëpp mu def ko mu kawe njortam ànd ko kilifaam gi Cheikh Mouhamadou Mountakha ni mu ko waxee rek ndigal loo xam dafa bàyyi ko ci sëriñ bi jëm ci jumaa ji muy loo xam ne liggéey bu rëy la bu am solo la boo xam ne tànn gi nga xam tànn nañ waa Espagne jox leen ko xam na xam guñ xam seen positif moo tax te loolu mën naa ci seede ci ñoom ndax juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñaar ngi ma liggéey ñoom ci daaytu Moukhaddamatoul Khidma bañ tolloo ci wut ay bale ñoo ko daan wut bañ soxla ay machine machine bu cher bu nekk indi nañ ko fi ba euh, bi ñu soxlaa oto yoo xam te ne day dimbale noddukat yi ak waa dara kam di leen delloo oto bii ñu indi leen mooy mooy seen ñetteelu oto boo xam ne indi nañ ko teg ko ci loxo daal Moukhaddamatoul Khidma doxantuute nag itte ju mag yi def ci koor gi ak yi def ci màggal gi ak social bi ñuy def ci biir jumaa ji lii daal muy jëf yoo xam ne moom seer nañ ko ci ñoom ñu koy def kon xam naa bu xalaatee lii teg teg leen ko dañoo xam ne seen passif attan ko te it euh, na ma ne man danañ ko def nu kawe ko sëñ bi bëggee ndax euh, xam gu xam seen passif kon nag ci ndigalu sëñ Cheikh Ahmadou Bachir. ñoom jot li ko ndigalu sëriñ bi. waa fédération Espagne def ko kon suñ Mbakke mooy njiit li nañ ko xamee ànd ak suñu aar yi ak mbokki taal bi fenn ki yëpp Assane Diop it niñ ko xamee moo fa nekkoon foofu waa xidma moo ba tey mi ngi ci biir mooy itam bari na fa daayira bi àgg foo xam ne moom itam itteem àgg moo ko fa àggale ko mbokk ak kon ñu ngi am yaakaar bu baax ni sëñ bi defal defal feex nam leen ko baaxee dafay ci liggéey bu jëm ci jumaa ji bu nekk ndax na ngeen ca jëfe moom xam nañ ne tawféex lay doon waaye ñu ngi yaakaar bu baax ci barkeb sëriñ bi sëriñ bii toog ak Cheikh Madou Mountakha da ngeen amal ci tawféex ju leen bett ba ngeen defe ko nu kawe ni ko bëggee yàlla sëñ mën nangu lépp barke Cheikh Alxadim salaamaaleykum wa rahmatullah <laughs> ko sëriñ Afi waxee rek ngir ngir eh, dolli tuuti ak leeral rek bi nga xamee ne sëriñ bi wool na ma yónni ma ci Serigne Cheikh jëmb ngir jëneen yitte ba ma fa jugee ba agsi ci la ma jox ndigal ne naa leen ko jotle façancé lay yónnee woor leen ñu dikk ma ak yéen ba ci moom ngeen dégg ci kàddoom ci làmmiñam mu jox leen ndigal wax leen illay la tax mu jox leen ko ngir seen positif ak seen yitte kon yéen daanaka suñu kàddu jërta dolliwaat ndax yéen dégg ci làmmiñam mu wax bisimilah. maa ngi yëkkati kàddu ci turu fédération bu Touba Espagne yëpp. gannaaw bañ jëlee am nuyoo teg ko ci loxol sëriñ ba si mi moom Cheikh Abdul Xaadir di ko ñaan mu yàgg fi loolu te wér euh, di ko jotale am nuyoo ci Cheikh Madul Muntaxa di ko ñaan mu yàgg fi loolu te wér ba naal yim naal mu yeggale ko ba naal yeneen ban ànd kook moom maa ngi nuyu sëñ Afé bu sëñ mi toog ak mbooleem kilifa yi ci biir xam naa ngir njëkkante ak jataay bi ni ko sëriñ bi waxee amatul leen lu luñ ciy dolliwaat xanaa rek xamal ne ndigal la lu bàyyi ko ci sëriñ Muntaxa sëriñ bi wooloon nu ñu ànd dem fa sëriñ bi wax ñëpp dégg mu ne jumaa ji laa bëgg li ci nekk ci ay tàppi ngeen yeesal ma ko biir gi ak bitti gi loolu nag du liggéey bu ndaw te sëriñ bi tamit dafa am lum ci waxaat ci ne béréb bii kat néew na lu ma ciy jox ndigal nit yéen laa ko njëkk a defagun kon loolu mel na tawféex yu ñu suñu borom tawféexale la ñun waa Espagne kon ñu bàyyi ci xel bu baax sëriñ bi waxee tamit ne liggéey la boo xam ne am na ci ñun yaakaar lool ndax pësef jum gis ci Espagne loolu bi koy wax sëñ Cheikh Bass mii ma ngi toog kon loolu rek jar nañu gën a jaayuwaat gën a góorgóorluwaat fédération Espagne nag bàyyiwuñ fenn waaye ñu ñu lim régions yi nga xam ne ñoo nekk Espagne région bu nekk dafa am ñu boot ci ñoom fu mel ne ki Touba Catalunya fu mel ne Saragossa dayra Musdalis dayra Lirida dayra Menorca dayra Pamplona dayra Alicante dayra Valencia dayra Albacete dayra Salamanca dayra Alcasar dayra Sawija dayra Almeria dayra Ibiza dayra Tarragona dayra Granada dayra Madrid Touba Palma de Mallorca daayira Asturias ak daayira Gandia ak daayira Îles Canaries te muy mbooloo mu takku àndandoo ñu def benn île ñu tudde ko Îles Canaries daayira Burgos daayira San Sebastian daayira Calaf daayira Touba Galicia moom it ñu mbooloo ñu àndandoo nekk benn muy Galicia daayira Walba daayira Murcia daayira Cadiz ñii ñu lim nañ ay région la ku ci nekk da ngaa boot mbooloo ñetti dayira ba ñeent kon ñoo ngi tàllal loxo waa Espagne ñëpp taalibe yëpp ak bépp jullit bu nekk Espagne ñu xam ne ndigal lu bàyyi ko ci Cheikh Mamadou muntaxa jaar ci Serigne Bassirou mii ñëw ci ñun muy liggéey boo xam ne na ci ñëpp bàyyi xel tey tamit buñ jógee fii des na ci jox ay jéego fiñ ci war a jaar fépp ba woote ci ay réunion xool li bépp uh, béréb boo xamante ne si dem nañ fa fu mel ne Màkk wala Madina wala fu mel ne euh, Turki jumaa ji ci gën a rëy tapis ya fa nekk fas nañ yéenee xool yu mel noonu wala yu ko gën a féete kaw indi ko ci jumaay Serigne Touba ji ndax méngoo na ko loolu nag kon nan fexe ba murid yëpp jàpp ci ndax sëñ bi kën ni mu ko waxee nan bàyyi xel ci ne bu ko joxoon kenn dong mën na koo xëy def kon bu waa Espagne ne damaa gis seen passé bu ngeen am ci man moo tax ma yëkkati ko jox leen loolu aw sas la kon nag ñoo ngi tàllal di ñaan Cheikh Amadou Bassirou mii ci seex mun Mountakha mu defal ñu gàttandu ba ni ko sëriñ bi bëggee ñu defe ko ni balaa yàgg jibbal ko ko ñoo ngi sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi gannaaw bi ñu leen nuyoo ñu ngi jiital ci nuyoo bi kilifa gétaa bi muy Cheikh Amadou Bassir ibnu Cheikh Abdoul Khadri di ci teg Cheikh bu Bousso mi nga xam bii ni moo jiite jubaa ji di leen nuyu ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaan sunu boroom yàggal ko te mu wér di nuyu mboolem kilifa yi nga xam bii ni ñoo bokk nekk Espagne ñuy ay jiiti daayira euh, lim bi nga xam ne moom la sëñ Mbàkke doon lim sax dañ naan daayira ba ca jiitu walla ba ba ca mujj kenn mënul wax ne maa jiitu kenn mujj kon loolu ni ko sëriñ waxee léegi ne buñ ko joxoon kenn nit mu fas ko yéenee def kon buñ ñu ko boolee ñun ñëpp dañu dégg lii sëriñ aa fi wax ci sunu taxawaay démb tey door a ñëw sëriñ bi dolli ci lii mu ci dolli kon kenn ku nekk su fekkonte ne da ngay summi sax euh, jël sa kaala takk ku ci sa ndigg ne bu fekkente ne liggéey bii mënut a yegg dootu ca dell mukk nañ ko def kon nag na ñëpp laxasaayu xale bi ne la sëriñ bi waxoon rek laa leen di wax ku ci feeñ dootoo nëbb bu mukk ku ci nëbb it dootoo feeñ bu mukk loolu nag doy na waaw jumaa ji nag ndigalul sëriñ Touba la waxoon naa ko ca kër sëriñ Afia ne mooy mujj gi ndigal ku ci jëful moom amoo ndigal kon sëriñ bi yeesalaa na ndigal li kon kenn ku nekk yaa xam yaa ngi ci biir réew mi te nekk Espagne wala yaa ngi Espagne waaye képp ku fa nekk di wax asadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa asadu anna muhammadan abduhu wa rawatina ngay taalibeb Serigne Touba bu la kenn ne sas nañ la lii wala laaj nañ la lii lépp loo man def ko ci ak loo mënut na ngeen ñu baal àq nag bu baax ñu ngi ñaan nag ñu ñu ko sëriñ bi digale ñu def ko nu kawe njortam indiwaat ko ba lépp yegg te ñu ànd ak moom julli ci lu yàgg a yàgg te sëriñ Afi mi ak Cheikh Modou Mountakha ak Cheikh Modou Bassir jiite ñi ak njabootu sëriñ Touba gi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa taala wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk julli di bokk taalib yi noo ngi leen di nuyu di leen siyaare tey jiital nuyoo bi ci sëriñ Mouhamadul Mountakha Mbacké tey ñaan mu yàgg fi lool te wér ci barke Cheikh Amadou Khadim ak njabootu Cheikh Amadou Khadim gépp di ñaan Cheikh Mouhamadul Bassir mii nga xam ne moo nu liggéey bii. yàlla na yàlla guddul fanam lool te wéral ko ci barke xaadimu Mustafaa sallallahu alayhi wa sallam ba nit ñu ko sante nu nu nu liggéey ko ba mu ne coleet ba yaakaar sëriñ bi am ci noonu ba dina ko jox yàlla nañ ci saa borom ba taw feexale nu def ci lu kawe suñu njort du nuyu sëriñ Afi mi nga xam ne moo moo moo moo moo jiitee moom itam léegi jumaa ji du nuyu bokk yëpp di leen xamale nag yéen waa Touba Îles Canaries Lanzarote Tenerife Fuerteventura Las Palmas ak mboolem juróom ñaar îles fa nekk yépp nag gis ngeen mbooloo mi toog ak ndigal lii ñu nu jox nan fexe ba bu waxtu wuñ ci soññee nu man ci wala kenn bañu cee man ci barka xaadimul Mustafa sallallahu alayhi wa sallam noo ngi jégalu nag ndax danoo mënut a wax ci mbooloo waaye nag ndigal li Alaaji Abdu dafee néewut sëñ Abdou Sari néewut te ñooñu ñoo ñoom lan teewal fii seen kàddu la ñuy waxee. kay jërë ngeen jëf noo ngi jégalu bu baax a baax. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk taalibe ñoo ngi siyaare ñëpp di siyaare suñu jëwri ji fi nekk eh, sëñ ba di siyaare eh, kilifa jataay gi sëñ Bass eh, ñu ngi siyaare mboolem waa daay waa ñi fi nekk ñëpp daal di soññewaat rek ci nga xam ne ni ñu ko kilifa yi waxee liggéey boo xam ne tawfeex la ci ñun ngir lu jóge ci sëñ Muntaxa ñëw ci mboolem waa Espagne kon takkaat suñu laxasaay rek jëm ci liggéey bi lañu ñu war a def moom kenn ku nekk na xam ne liggéey bi mooy sa pajo aajo kon nag bu ñu ci kenn bàyyi dara ci sag man ñu ngi siyaare ñëpp nag ci yëglu bu baax. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki Touba Espagne noo ngi leen di nuyu di leen siyaare ci turu sunu kilifa Cheikh Mouhamadoul Bachir mii nga xam ni moom la sëriñ bi booleel ak sëriñ Afe mi nga xam ni moo jumaa ji. sëriñ Mbacke njaay mi nga xam ni moo jiite Espagne yëpp sëriñ bi nag war nañ ko ñaanal mu yàgg fi te wér. kon defe naa bu yëkkatee tey nii damaa bëgg ngeen yeesalal ma tapis jumaa ji biir ak biti kon yaakaar naa loolu moom ndimbal na loo xam ne ci Espagne maanaam li ñu war a saxoo rek mooy di ñaanal sëriñ bi. kon loolu sëñ Bas ñi ngi koy yalwaan ci yow nga ñaanal ñu sëriñ bi mu yàgg fi te wér ba yéene ji nga xam ni yëkkati na ko jox ko Espagne. nu def ci lu kawe njort loolu daal mooy yittey waa Espagne ñu ngi soññi nag ñaari dëkk muy Bilbao ak euh, Malaga ñoom it ay jàmbaar lañ yoo xam ni ñu ngi ci biir Espagne kon daal loolu mooy kàddu yi euh, nan ci góor góorgóorlu nag te taxaw ci bu baax a baax a baax ni nga xam ne noonu lañ ko sëriñ bi sante kenn ku nekk ci ñun na nga yëkkati say xalaat ak sa yitte ak sa pas-pas jëmale ko ci ndigal li jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. التي ونسودكم الله الرحمن قد الصراط المستقيم كل يوم ومنا وقوينا وحاجة كل يوم وإذا وقوا يستجعون بتوفيق وتيسير دعاء دفع التوفيق